je pense que gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp comme ni ma ko waxee daal conférence de presse bi daal lu ci wut daal mooy waxtaan ak askan wi dalal xelu askan wi dalal tamit xelu njabootu Khalifa Sall parce que tey nguur gi lu ñuy ci njabootu Khalifa Sall particulièrement mooy ñu ngi wut lu ñu mën def pour xoqatal leen ñu ngi wut bu ñu mën a def pour tas seen yaakaar ñu ngi bëgg njabootu Khalifa Sall en particulier wante tamit dañu bëgg tamit askanu Sénégal ñu am xel ñaar ci est-ce que xalifa Sall dina bokk am déet ci élection présidentielle bu 2019 mais dalal seen xel dinañ ñu ne Khalifa Sall ci yàlla àndee dina bokk ci élection président bu 2019 te bu neex yàlla tamit te mu neex tamit askanu Sénégal na nekk président du Sénégal te loolu ñun xam nañ ko moom xalifa Sall amu ci xel ñaar parce que yàgg na ci politique te président Macky Sall moom yàlla may na ko tuuti xam-xam ci mbiru élection nekkoon na fi ministre de l'intérieur nekkoon na fi directeur de campagne yu président Abdoulaye bi 2007 xam na politique xam na élection te tey su demee ba di dëkkaloo Khalifa Sall fu mu dëkkul c'est parce que Khalifa Sall mooy boroom Ndakaaru te Khalifa Sall mooy boroom Ndakaaru parce que loolu la yàlla dogal te loolu la askanu Ndakaar namoon mooy jël Khalifa Sall def ko seen xalif loolu nag ñun ci dal la ñuy sukkandiku pour wax lu mel noonu dama ne tey suñu doomu ndey di Cheikh Bamba nekkoon na fi maire de Saint-Louis du noonu bokk na ci élection président lu tax tey président Macky Sall wutul pour jëm koo bundu moom parce que ndeyu mbind bi mooy Dakar du Ndar Aïssata Tall Sall di suma yaay di suma avocat mooy maire Podor tey moom candidat la élection président bu 2019 lu tax président Macky jéemul bundu xatal Aïssata Tall Sall parce que une fois de plus coow li coow li bi yëpp mooy Ndakaar Dakar Dakar mooy yéen mooy askanu Ndakaar Dakar ñun PS si ñun xam nañ lan mooy Dakar parce que lu tax ñu ñàkk nguur gi 2000 dakaar moo tax ñu ñàkkoon 2000 parce que 98 ñaari at ci ginnaaw président Abdoulaye Wade moo gagné woon député Dakar ba. dem assemblée nationale ndam bu président Abdoulaye Wade amoon 98 ndam boobu moo tax président Abdoulaye Wade dem ak président Abdou Diouf second tour 2000 daan président Abdou Diouf faru nekk président du Sénégal ñu dem 2007 élection président Abdoulaye Wade gagné premier tour ñu ne ah président Abdoulaye Wade daal dafa am ay jinne yu ko woteel wante yéen ñëpp. bu ngeen bàyyee xel ci 2007 Ndakaar lu mu meloon da ngeen xam ne Dakar yëpp ay chantier ba jamono yooyu sax ñu ne bàyyi leen góor gi muy liggéey bàyyi gi muy liggéey gis bokk si donc Ndakaaru mooy lépp parce que 2009 ba Abdoulaye Wade ak ñu mu àndaloon ñu daal di perte Dakar parce que ñun dafa amoon politique bu ñu doon politique biir Sénégal particulièrement biir Dakar dañu waxoon askan wi dafa am lu ñu namoon def Sénégal lu ñu fi namoon def yéen ñëpp xamoon ngeen ko jamono yooyu mooy papa dem doom toog loolu est-ce que amoon na est-ce que amuloon wante ñun loolu moo nekkoon suñu discours discours boobu nag ñu waxoon ñun askanu Ndakaaru yéen bu leen ko nangu parce que yéen su ngeen joxee ville de Dakar ngeen jox ko njabootu président Abdoulaye Wade ñooñu dañ koy utiliser pour suñu demee élection président 2012 ñu mën a def lu ñu nama def ndakaaru ne ah comme mbir bi noonu la tëddee ñun daal dañuy wote pour opposition Abdoulaye Wade parce que ce n'est pas possible que président Abdoulaye Wade gagné 2007 premier tour ak 54 pour cent Dakar bi mu amoon 57 pour cent presque que ñaari at après mooy 2009 mu ñàkk Dakar donc loolu mooy la force politique de Dakar 2012 nag lu tax président Abdoulaye Wade dem second tour c' est parce que ñaari at ci ginnaaw 2009 dafa ñàkkoon Dakar dakaar da ko yóbbu second tour mais kan moo demoon ak moom second tour mooy ku nga xam ne ni 2012 moom moo jëloon PD Dakar mooy président Macky Sall moo fii jiitu président Abdoulaye Wade topp si président Moustapha Niass tegu ci loolu mooy dëgg Dakar ku fi amul 40 pour cent fii biir ndakaar ku fi amul. xel xalaatul sax ngay jàll premier tour te fii képp ku bëgg dem second tour il faut nga nekk PB Dakar wala nga tegu ci en numéro 2 pour mën a dem second tour donc loolu moo yóbbu président Macky Sall second tour pour élection président président Macky Sall yàlla dogal mu gagné mu toog ñu ne dañuy dem élection locale ñaari at après ñu dem élection locale. président makisal ñàkk Dakar wante moom lu mu ñàkkee Dakar ñun xam nañ lan la moom xam na loolu lan la firndeel ci biiru politique te yàlla bu ñuy yàlla mën nañu seede xam na ni que lii dak ndakaaru bii nii nii nii nii wax ci jeex na te président makisal Sall këyit bi mu am mooy li ñuy wooyee ci tubaab ñoom ne nañ ko dañ koy wooyee ay sondage man du ma wax ne ne que ñun dañu yor ay sondage wante ñun tamit yor nañu ay këyit këyit yooyu moom la tubaab yi yor te këyit yooyu ñun binduñu ko président Macky bindu ko dafa am ay nit ñu nekk fii biir dëkk bi di ay doomu Sénégal ñoom ñuy liggéey liggéey yooyu président Macky Sall fu mu dem ba namoon ñu bindal ko ay chiffres ñun tamit foofu la ñu dem pour ñu bindal ñu ay chiffres te moom lu mu yor ñun moom lañu ñu yor. te loolu moo tax ñun ñu am sañ-sañ taxaw ne ñun lu ci président Macky Sall bañul pour ñu bañ a bokk ci élection ñun dinañ def suñu kéemtalaay kattan bu bokk ci élection parce que ñun xam nañ que quel que soit alpha falu nañu ba pare loolu du lu ñuy laam-laame parce que ndakaaru 19 communes la 19 gox-goxat xalifa Sall yàlla may ko ndam ci 16 communes ci 19. Khalifa Sall waxuma leen 40 pour cent waxuma leen 50 pour cent mi ngi entre et cent à Dakar Dakar département la te loolu président Macky Sall il le sait nous le savons tubaab bi xam nañ ko donc président Macky il faut pas que mu foog ni que parce que mënul gagner Dakar que Dakar narul am candidat Dakar day am candidat parce que tey. cassation bu ñu dugal bu Khalifa Sall mënuñu ko vider daanaka daanaka mënuñu ko acté fii ak ñuy def dépôt de candidature ak dépôt de caution mënul nekk te waa Cour suprême ñu may dégg te man maa ngi interpellé la magistrature nañ ci taxaw te nañ dañ ci bàyyi xel parce que suñu bëggul dégg wax bu ñaaw suñu bëggul dégg wax bu ñaaw nañu rafetal taxawaay nañu rafetal jëfalin bi dañ ko rafetal parce que ñun duñu ay ragal te lu ñu gis nañ ko wax parce que Sénégal santul Masamba Sénégal santul Mademba ñun Sénégal képp rek dong lañu am fii kuñ fi génn Sénégal foo munti dem ci àdduna bi loo munti am ci mën-mën ci kattan ci alal soo ko indiwulee fii Sénégal du du du la neex parce que sa mooy Sénégal sa ndam mooy sa askan. yow nag nga juddoo ci réew màggee ci réew dëkk ci réew ñu ne doo ci bokk loolu loolu loolu loolu fu ñu ko mën a gis moo tax ma bëggoon ngeen am la bonne information yéen tamit yàlla dogal ngeen nekk ay journaliste ñun ci dëkk bi la ñu dëkk lu fi xew xam nañ ko ñun suñuy wax waxu presse bi waxuñu ñu ngeen xam ne nii xam ngeen bu baax lu askan bi dund mooy daanaka da ngeen liggéey ba weer dee di xaar salaire su ngeen di xëy bu dem liggéey kenn du leen di kenn du leen lu xew ci taxi yi ci ci clando yi ci oto yi ak yu mel noonu xam ngeen bu baax lu xew ci dëkk lu xew ci dëkk bi ak lan la Sénégal di di di dund. wante ñu ñuy waxal su ma baat ci kaw mooy ñu ñuy woyee les patrons de presse dama ne presse amul droit parti pris mooy farfarloo farfarloo presse. parti politique la man mën naa am sañ-sañ ne parti politique la parce que la presse traite de la politique nguur bi fi nekkoon ak président Abdoulaye Wade balaa ñu ne parti politique yi balaa ñu ne ay coalition benn xawma lan c'est la presse qui a fait partie ce régime tey nag ñu jël parti boobu bu nga xam ne ni c'est le parti du peuple parce que il a toujours informé juste et vrai ñu bëgg ko def mouvement de soutien mu bokk benn bokk baakaar loolu fu ñu ñu ne ñun nag dañu doon noppi ñun de presse ils je vous citerai vous tous un par un nom par nom je donnerai des preuves que vous avez marché pour prendre les enveloppes c'est ça la vérité vous n'êtes même pas capable de payer vos personnels et pendant ce temps vous vivez dans des châteaux loolu mooy dëgg dama ne weer su dee bu ngeen fay seen personnel seen caméraman yi fay seen chauffeurs yi fay seen journalistes yi dañuy taw ba dugg boîte vocale yéen du publicité yi ñuy dugal ci journaux yi du loolu mooy ni dundal ngeen taxaw fii jot ay kër yu nga xam ne ni suñ ko doon xaymaa ay milliards la ngeen di dugg palais ñuy dagg ay suuf di leen di ko jox ngeen foog ne ñun xamuñu lu xew ñu leen di daggal ay enveloppe di leen di jox weer bu nekk ngeen bëgg jël nag askan wi bëgg leen noot jël seen télé yi jël seen rajo jël seen journaux yi bëgg ñu noot ñun duñu ngaak te lu xew ci dëgg bi xam nañ ko di leen ko wax caméra yi moom ngeen jënd wante moomu leen caméra yi askanu Sénégal moom caméra micro yi yéen ña leen jënd micro yi naam nangul nañ leen ko wante micro yi askanu Sénégal ñoom moom micro yi loolu mooy dëgg moo tax ñu ngi leen di ñaax yéen ñu ngeen xam ne ni vous êtes des bu leen nangu kenn noot leen parce que ci askan bi ngeen bokk dama ne lu askan bi di dund moom ngeen di dund yéen te xam ngeen lu fi xew dë yéen kenn ci yéen woowu ñu leen pale daggal leen ay suuf ne leen 1000 mètres carrés bi na jaay 500 mètres carrés bi bi des patrons de presse qui sont millionnaires, multimillionnaires, milliardaires. Ils ont cet argent, ils l'ont eu. Comment Vous faites un million, vous faites un milliard, vous faites ce personnel. Vous les faites à temps et vous les rémunérez bien. Vous qui nous liguez, vous faites avec l'inspire. C'est ce que moo tax ma leen di ñaax yéen journalistes yi askanu Sénégal am nañ yaakaar ak seen taxawaay parce que démb ak bërki démb yéen xam ngeen ñun xam nañu la woon fa woon ba woon na woon rek donc moo tax mais ñaax tamit di ci woo waa société civile di woo waa UMS di woo waa Sénat nañu xool lan lañu mën a def ba képp ku nga xam ne ni nam nga nekk candidat yàlla dogal nag ñu jaay la doole nga nekk ci kaso bi nga mën a nekk candidat loolu mooy yoon parce que tey Khalifa Sall ñu ko dugal kaso ñoom xam nañu ñun xam nañu te yéen tamit xam ngeen parce que wax dëgg yàlla ku nga xam ne ni day gérer budget cinquante milliards at bu nekk kooku année prochaine mooy nekk mooy def dix ans bu Khalifa Sall euh, di gérer ville de Dakar mooy cinq cent milliards waaw yéen suñu leen waxoon tey nit ki daal dama ko jox téeméer wante ci téeméer boobu moom jël na ci fifteen ak genn wàll mais loolu du waxu ay wax bi daanu saret la loolu waxu kasaw kasaw la wax jooju amul ji dafa dafa yarul maanaa parce que yéen ñii sax ku nekkoon ci yéen di doon téeméer dégg ko moromam moromam jël ci fifteen ak genn wàll ku di ko ne ay delloo ma sa teg ci nag ci ku nga xam ne ni jëlul lu mu moomul dañ ko dénk xaalis ne ko ñun conseil municipal ñoo def délibération ne la xaalis bi pour nga man ci def lii lii ak lii ak lii la te loolu mooy dëkk loolu moo fi mas am depuis trente ans loolu nu ma mën a amee ci réew bu mel ni Sénégal am administration ñu ne loolu ñu suñu ko gis musuñu ko dégg xamuñu ko woon waaw xanaa kon dëkk boobu amuloon administration xanaa dëkk boobu amuloon ay fonctionnaire amuloon préfet amuloon gouverneur amuloon amuloon ministre des collectivités locales amuloon service de renseignement donc loolu ay wax bi daanu saret moo tax képp ku ànd ak ñu ngi lay ñaax nga ànd ak sa ngor parce que ngor mooy lépp mooy doomu aadama ñit day gore day am gore ñàkk gore am yor yàlla ñàkk yor yàlla wante bàyyi leen xel ci du leen wax nguur bii lu ñu namm mooy liggéey ba ngeen am xel ñaar mooy bokkatal leen mooy jëm leen napp ku fi dem tamit di nga mel ne deful dara soo foog ne nii que dina am ku lay ñu lay topp rek yaa ngi nax sa bopp parce que fii particulièrement bi Dakar Dakar waaye wote la ñu fii benn maire commune amul dañu wotel Khalifa Sall la ñu su ma baat ci kaw te képp ku nga xam ne ni tey maire nga nga bàyyi Khalifa Sall ne da ngay ànd ak nguuru président Macky tey soo demee ba dégg maire ginnaaw yàlla Khalifa Sall moo tax nga dem maire man man maire laa fii maire moom Sacré-Cœur tudd kenn nag wante am na ay gox yu bëri biir Ndakaaru su ma fa duggoon tey maire yu maire yu fa nekk man naa juuma wante de suñu moytuwulee leen mën naa leen suul ci politique suñu moytuwulee maa leen gën a siiw maa leen ëpp mbooloo seen biir gox maa leen ëpp baat seen biir gox te man mii Barthélémy Dias su ma waxee fii biir moo Sacré-Cœur askanu Mermoz Sacré-Cœur balaa ñuy xalaat Barthélémy Dias dañu ne liste bi listu kan la man leen bii mooy listu Khalifa Sall ñu ne kon indi Khalifa Sall a gagné 16 communes sur 19 c'est du jamais vu dans l'histoire politique de Dakar jamais moo tax mbokk yi nañu dellu siwaat xel yi te nañu gëm yàlla woon tamit nañu woolu yàlla moo tax ñun lu ñuy ñaax daal Sénat ñu koy ñaax tamit UMS di ko ñaax tamit société civile mooy Khalifa Sall nekkoon na fi candidat à élection député yii 2017 tous ces droits ont été bafoués amuloon sax droit def télévision def déclaration te loolu loi moo ko may sañ-sañ boobu moo tax tey ma bëgg ko wax fii avec force mënuñu nangu Khalifa Sall nekk candidat élection président kaso bi moom waxuñu waxu kaso bi parce que man Khalifa Sall su ma ko gisee ci kaso bi sax man des fois dama koy laaj est moom mi ngi ci kaso bi am déet parce que Khalifa daal mel ni moom mi ngi biir këram daal di dem di dikk rek di dem di ñëw waaw. candidat ci kaso bi du problème problème bi na Macky Sall joxe carte yi Ndakaaru dafa am borom su neexee yàlla Dakar dina wane waat boppam te Dakar su wane boppam rek Sénégal wane boppam parce que loolu noonu la yàlla bindee politique Sénégal c'est pourquoi nous exigeons ñu ngi exiger que toutes les dispositions pour que tous les droits de Khalifa Sall soient respectés lors de l'élection présidentielle même su nekk ci kaso bi il a droit à la il a droit de pouvoir exercer ce que lui confère la loi électorale lu ko loi électorale may daal nañ ko may su ma dossier nag nee nañ dama am dossier ne dama am ñaari dossier man lu ma jàpp mooy man dossier parce lu ma yóbbu woon kaso juróom benn weer loolu du ma ci dellu siwaat parce que nee na ñu ko namoon def ñoom lu ñu namoon mooy man ma bañ fekkee lu ñuy liggéey loolu nag yàlla moo fi nekkal ñëpp yàlla moo dogaloon damay dem pour juróom benn weer te bés bi laay génn maa ngi santaat kon yàlla bu baax a baax bu ci des ma bëgg ñuy toog di ne ay Barthélémy Dias dañ ko tëj kaso parce que dafa dafa saaga wala dafa xas ay magistrat mooy lu ñuy wax tubaab outrage à magistrat loolu amul dañ ma doon topp ci loolu wante kenn tëjuma ci loolu xasuma kenn saaguma kenn parce que pour nga xas magistrat wala pour nga saaga magistrat foog nga tudd turam da ngay jox turam jox santam wala nga jox qualité am mooy moom lan la ci magistrature moom lan la moom procureur la moom juge la moom lan la tudduma kenn ci turam ci santam tudduma kenn ci lu ñuy wooye fonction man nag dinaa dem tribunal le sept wante bu may dem tribunal bi ñu may àttee ci dossier bi wax naa ma xalaatoon ne ni que même yéen waa presse bi ñu ngeen dégg fu ma waxee wante peut-être nu ma doon waxee moo xawoon gaaw ba kenn déggul lu ma wax lu ma toog tribunal yëpp nee naa man lu ma wax su ma baat ci kaw du ma dellu ginnaaw wante musuma tudd magistrature musuma tudd magistrat man j'ai parlé de la magistrature et j'ai parlé des magistrats magistrature nag dafa am ni ñu koy bindee magistrature tamit moo am ni koy binde waaw dama ne magistrature ñun moom la ñu gëm parce que ay sénégalais yu bëri dañuy yeewu chaque matin dem tribunal ñu ni di tey ñun lu ñuy ñaalu Sénégal mooy magistrature boobu magistrature mooy fu may waxee rek ku jiitee réew mi tey dafa am tur tur boobu su ngeen ci yokkee astrure rek di ngeen naa magistrature moom laa doon wax ci tribunal même juge yooyu tamit dégguñu fu ma waxee moo tax ma ne ñooñu ñu ma tëj ma ci kaso parce que dama xas wala saaga ay magistrat man ci waxu magistrature laa wax te su ma baat ci kaw du ma ci dindi bi du ma virgule du ma ko ci dindi parce que tey UMS lu ñu ñaaw lu ñoom ci lu ñuy dund loolu man waxuma ko UMS a ko wax juge dem bu muy démissionné lu mu doon ñaawlu mais yéen ñëpp dégg ngeen ko parce que juge dem nee na moom magistrat la wante moom mënul nekk magistrat di liggéey ak ay magistrat mënul nekk mënul nekk dafa mënul nekk parce que gor gor lay àndal loolu mooy dëgg ñu topp ma tamit ñu ne man damaa ñàkkal faydal décision daanaka ndogalu justice discrédit jeté sur une décision de justice ana man daal damaa ñàkkal faydal ndogalu justice ñu topp ma ci loolu daan ma ci loolu dinaa si delluwaat ñu topp ma nag finalement troisièmement ñu topp ma juy damaa woote bu benn ndaje moo tax ndaje boobu daanaka mu jéewul am ñu nekkoon ndaje bu ma woote mu jéewul am bu leen koy bàyyi euh, da ngaa saaga da ngaa xas ay magistrat boobu tamit dañ koy bàyyi parce que boobu tamit amul wante nag yow da ngaa ñàkkal fayal ndogalu justice ma ne leen loolu mënul nekk parce que yéen code pénal moo nekk pour ngeen mën ma topp ci ndogalu justice bu ma ñàkkal fayda mais kooku man awma télé man awma rajo awma micro ku ma jox micro mooy waa Dakar Actu su ngeen ma noree topp na ngeen noroo topp waa Dakar Actu mais ñoom sañu ñu topp waa Dakar Actu yéen kan moo sañ taxaw Sénégal ne benn télé benn rajo wala benn journal amoo droit informé amoo droit taal sa caméra amoo droit jël sa micro jox ko leader d'opinion nga poser ay question kooku noo ci toppee journaliste noo ci tëjee journaliste mais kon boobaa on est plus en démocratie on est en dictature kon ñoom je vous invite ngeen xool article 192 du code pénal lu mu wax kenn mënuma topp ci loolu te topp waa Dakar Actu te Dakar Actu pour nga topp leen il faut nga wax leen leneen ginnaaw seen liggéey te mënuñu def seen liggéey nga leen topp seen liggéey mënul nekk dañu ne man dama ñàkkal fayral bés euh, ndogalu justice waa mais yéen cour de justice de la CEDEAO ñoom lan la ñuy wax ci atte bu ñu atte Khalifa Sall dañu ne atte boobu teguwul ci yoon mais ñoom seen bopp dañu ñàkkal fayral ndogalu justice boobu bu ñu tegu tamit mooy moo xam Khalifa Sall moo xam procureur la République moo xam agent judiciaire de l'État moo xam Euh, avocat état yi mais ñoom ñëpp dañuy def appel ñoom suñu demee ba def appel parce que ñoom d'accord ñu ci décision de justice man mënuma appel parce que man bokkuma ci procès bi wante man leader d'opinion la te man constitution du Sénégal moo ma may liberté d'expression te yéen xam ngeen su ngeen demee université faculté de droit première année lan la ñuy jàngal xale yi dañ leen di jàngal ñuy critiquer les décisions de justice parce que tubaab nee na aucune œuvre humaine n'est parfaite loolu mooy dëgg wante nag ñu ne kan moo jël xar gi rek a sànni buum bi kooku na nga xool sa taxawaay moo tax lu ñu namoon daal tey ci point de presse bi mooy bu leen am xel ñaar ci candidature de Khalifa Sall day am incha te ci kattanu Yàlla tamit day falu nekk président bu may daanelee mooy mbokk yi ci ay waxtu yu néew xuma ay fan di ngeen ñu gis di ngeen ñu dégg loolu la ñu Khalifa diggal digal mooy dem ci askan yi wax ak ñoom dem ci askan wi wax ak ñoom ñaax leen ñu parrainé suñu candidat su ma juumulee loi bi nee na amuñu droit dugg ci camp militaire amuñu droit dugg ci hôpital du noonu fu dul camp militaire ak hôpital nag dinañ fa dem may ñaax nag préfet yëpp particulièrement préfet de Dakar xuloowuñu xeex taxuñu jóg wante lii di suñu waru gaal dinañ ko def te ñun nag yàlla moo dogal ñu nekk ay nit ñu nga xam ne dañu ñun dañu xumba kon ñun lépp dañuy def day xumba kon nag ci loolu bu ci kenn mer parce dañu toll ci jamono bu nga xam ne nii foog ñu yëngal gaal gi ndax gars yi yëngatu donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp nee na respect ci jabootu bu fi ñàkk bakkanam amuñu benn respect ci sénégalais yi am ñu benn respect ci magistrature parce que suñu bëggoon ñu àttee dossier boobu 2012 ba 2018 ça fait juróom benn yàtt musuñu jóg bu ñu mën a atte ak euh, dossier boobu ñoom dañu njëkk a jóg 2014 ne dossier bi dañ koy jéem a atte parce que man dama doon jàppale Khalifa Sall ci élection locale ñu yëngal dossier bi première instance tey ñu ne Barthélémy Dias de gën a ci kaso bi te Barthélémy Dias gën a ci kaso bi ah Barthélémy Dias moom soxlawul muy wax boppam parce que saabu du fóot boppam la woon fa woon rek noonu ñu ne kon Bart nañ ko nañ ko jox du ngeen xam ne ni da dem tari leneen ginnaaw nekk ci mbedd bi di xool lu muy def pour Khalifa Sall nekk président ma ne man député laa woon su ma baat ci kaw man maa ne nañu lever di suma immunité parlementaire man député laa woon man maa ne dama bëgg ñu jugé ma parce que man la ñu song ci buntu mairie bi man songuma kenn te lu ma wax suma ma ci kaw mu su ma wax damaa rey lu ma wax wax naa ko Sénégal yëpp dégg ma damaa aar suma bopp te ma yàlla loolu amaat fii su fi amaatoon lu ma defoon même chose laay def dama ne suma bakkan bi abalewuma ko lebalewuma ko taylewuma ko waaw dugub maa am suma bakkan politique suma làmmiñ laa yoon mu suma songa kenn damay wax wax bi mën nañ dëgër mën na sax ñaaw des fois mais du ma song kenn yenn journalistes yi bu ngeen di wax ci waxu dossier boobu da ngeen wax waxu attaque ku wax attaque wax défense lu am buntu mairie bi du ma ci seetlu si wante dama ne ñu may ñu moo wóolu tribunal nañu xam ne ni dossier boobu dossier boobu contexte politique u tey moo ko commandé mooy bëgguñu Barthélémy Dias bokk ci élection président 2019 bëgguñu dem wuti ay parrainage pour Khalifa Sall bëgguñu Barthélémy Dias fital njabootu Khalifa Sall bëgguñu Barthélémy Dias dooleel njabootu Khalifa Sall bëgguñu Barthélémy Dias di wax ak askanu Sénégal kon Barthélémy Dias na dem tali leneen Barthélémy Dias nañu wut ay yoon pour dugalaat ko ci kaso bi dama ne ñuy wax loolu ñuy dox loolu ñu may yéene loolu ah, nañ ma dégg bu baax a baax man dunduma leen man faalewuma leen man kippeewuma leen parce que ñoom nu ma leen jàppee dama leen jàppee ay cuune te comme man benn nandite moo ma gënal conteneur u cuune man naa jàppe suma nandi naa jàpp suma nandite nii nii xale bi si ànd ak ñoom gëm yàlla ku ci des ñu bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla ñëpp la fi nekk dama ne magistrat yu ngeen xam ne ni ñoom ñoo ma doon àtte ci premier dossier bi du ma si delluwaat lu ma ci doon wax wax naa ci dossier bi ci mbiru mairie bi maa ngi leen di ñaax nañu bàyyi xel njabootu xale bu fi ñàkk bakkanam nañu bàyyi xel askanu Sénégal lañu déglu te man nañu xam ne ni que j'ai rendez-vous avec le peuple sénégalais parce que nous on a rendez-vous avec l'histoire nañu àtte te nañ ko teg ci yoon man lu ma bëgg mooy nañ ma juger suma wax ne dama bëgg ñu liquider ma te le pouvoir politique ne cherche pas à me juger ñu bëgg mooy dañ ma bëgg liquider moo tax ma bëgg ñëpp dégg dinaa dem ci yar ak teggin dinaa déglu ñëpp ci yar teggin ci kaw ñëpp teg ko ci yar ak teggin ku wàcce yar ku wàcce teggin di nga ma dégg amul magistrat amul pouvoir politique nga parce que lu dul yàlla dunduma la une fois de plus waxuma magistrat j'ai parlé des magistrats na ku nekk rek xam ci ban catégorie la nekk parce que tey il n'y a aucun Sénégalais qui est fier de ce qui se passe à à 100% dans la magistrature en tant que corps kon ñu a xam ne ne ñoom ñooy yàq magistrature boobu